mbokk yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo ak yéen ah, di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom doole jàmm ah, tey nag ñu dalal koo xamante ni kenn dooru ko présenté ci réew mi waaye min nañ ko tamit suñu écran bi mu di Djimbory ah borom Pikine borom Feeling Dakar nekk suñu grand bu baax suñu grand bu disponible moom lañ fas yéene seqal waxtaan borom caara yi waaw moom lañ fa yéene seeqal waxtaan. borom Samsam 1 Samsam 2 Samsam 2. gannaaw dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu di la suivre. <laughs> waaw waaw ni nga ko waxee guy gi maa lay nuyu bu baax. Uh-huh. di lu xam nga say affaire guy gi quoi yal na la yàlla jàppale. jërëjëf parce que lu ma la mën a wax am na loo xam ne boo koy expliquer nit ñi day gën a gudd. Mm-hmm. yal na la yàlla jàppale quoi. parce que. xam naa bu baax yow booy bu baax nga. jërëjëf may gërëm sama gara Abdou Aziz Silla awa Mbuub Camara Mbay mhm. Abi Njaay mhm. xam nga bu groupe topp ka mhm. awa Siise yaay Amina di gërëm ñëpp daal ñi may bëggee Abdou Kool Aziz Koor mhm. sama xarit yooyu. am na solo waaw di la déglu nag. am na solo fi may njëkkee seen waru paa ba ca kanam. d'accord fi may njëkkee. Hmm. mooy dama bëgg comme yow tamit ku la xam-xam sa bëgg Thione sekk hmm. xam sa taxawaay tamit ah, ak ci Thione Seck ba tey ñëpp ràññee la ci. Hmm. dama bëgg nga ñu ñëw ci daanu démb taxawaayu Ameth Thiou. ci ramdaanu démb maanaam dama ñëw ci ramdaanu démb naka la ramdaanu démb doon doxee. non xam nga ñun moom dañ daan fan Thione kon ah ñun luñ daan mën a gis am na yoo xam ni yooyu moom ñoom ñoo ko doon dund mais ay ñu daan gis si kaw yaa ngi dégg kooku euh, moom mooy kon moom ku ko xam xam ni ku gëmoon boppam la. Mm-hmm. ku gëmoon boppam la parce que coon bu gëmul woon boppam tey du ma fi nekk di détaillé mais orchestre lëmm mës nañoo bàyyi ba kenn nit des si coon des fi. non du ma tudd seen tur mais dama laa wax ne la coon dund na loolu ci musique bi Ramdaan Ramdaan orchestre bi yëpp ñoo bàyyi ba mu des kenn nit mhm. te coon dafa toogoon doxal yaa ngi dégg ba tey affaire bi tey kenn ku si nekk ñu dem ba mu yàgg kenn ku nekk di jàngee ci coon way affaire bi di dem nit ñi bëgg ko ba nii mu génnee àdduna sax si la coon sekk ëpp doole yaa ngi dégg mais dama dégg benn wax boo xam ne wax wax boobu tamit mooy euh, Wally Seck xam nga euh, Wally Seck kenn joxu ko Ramdaan xam nga tey bàyyee naa la Ramdaan day fekk Wally ñu jox ko Ramdaan Ram Ramdaan kenn joxu ko con euh, kenn joxu ko Wally Seck. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. Wally Seck li mu yor. wax dëgg yàlla moo ko jox boppam. parce que tëb sa tëbinu bàyyi dina rëq sa ndigg mais bu yàggee nga mën tëbin bi. Mhm. mais wax dëgg yàlla man lu ma gis. parce que coon damay waxal yàlla rek coon dund na waali di doon li mu doon parce que coon moo nettali nee na dama nekk Europe ñu ñu téléphone ne tey xaw ma kan moo xew la moomi wala xaw ma daal waali toj na xew wi waali moo doon way mais baatam comme sa baat xam nga loolu coon sekk moo ko wax mm-hmm. bi mu ñëwee tamit nee na waali dafa daan defar kaset indil ko bu ko indilee mu xool ne ko bii baaxul demal defar lii demal defar lii waali demaat di defar nee na kaset bi mu koy mujj a jox daf ko dab ci tali jox ko ne ko déglul ba xam baax na mu déglu ne ko mi ngi doog a ñëw mm-hmm. kon waali li mu doon kenn joxu ko dara d'accord koo jox dara mooy nga yëkkati dara jox ko ko. Mhm. li kuñ jox dara moom nga koy bàyyeeg lool mais joxu leen ko ko nan nga koy bàyyeeg Ramadaan. d'accord doo ko ko bàyyee parce que joxu leen ko ko. moom dafa gëm li mu gëm te bu keneen gëmoon li mu gëm yaa ngi dégg ba mel ni waaleet da ngay jël Ramadaan far force. parce que parce que Ramadaan benn nit la. parce que tey am na fi benn orchestre bu mag bugguma tudd seen tur kaka moomoon mus naa xëy yaayam feebar muy ñibbi bi muy ñibbi mu ne kenn ku si nekk li nga doon tëggee jël ko moog ngam moom ko orchestre bu mag la am na woykat bu siiw micro dong la ci amoon te ñi ñi amoon li ci des bu ñu musaan ñëw te moom ñëwul du ñu mën a dóor affaire bi foog ñu xaar ko ba mu ñëw. Mhm. te affaire bi coow la mujjee coow ñëpp bàyyi ba mu dem ba tey moom rek ngay dégg turam. d'accord wax dëgg yàlla naka naka nga gisaan taxawaayu kii nga xamante ni mooy Ameth Thiou biir daan démb. non xam a Ameth Thiou moom ak tey collaboration bi nga xamante ni ak ak déggoo bi nga xamante ni amoon na ko ak Papa Thion démb. waa xam nga tey Thione seek ku ko xam-xam ni. Euh, terrain football la woon quoi Thione Seck terrain football la woon mun nga football mais doo ko dugal bii. Mhm. xam nga Thione moom am na yu bëri yoo xam ni. Euh, gis naa waali di ko nangu xam nga coon moom doo ko ko def. Mhm. parce que coon seek ak waali seek bokkuñu xam nga mais xam nga lan laa lu su fekkente ne waali seek yow nee nga dafa am lu mu la def lu la naqari. dinaa dinaa ñëw foofu mais dinaa ñëw foofu noonu. waaw mais dama bëgg non dinaa ñëw foofu mais dama bëgg nga wax comme taxawaayu Ameth Thiou démb biir Ramadan. waaw mais xam nga dama ne coon sekk dafa am ay affaire yoo xam ne doo ko ko def moo tax ma ne la coon terrain futbal la. Mhm. mën nga football fu la neex mais doo ko dugal bi. Mhm. kon doo mënoo comparer tey gaa yu fa nekkoon ni lii ak laa parce que coon dafa am nu mu mel noo xam ne boo melul noonu mënoo fa toog. Mhm. kon tey kon kooku xam nga si dimension bi muy demee rek nga kii mais euh, amet nu ma gisee amet yu Amady Badiane tamit wax dëgg yàlla ñu yàgg ak coon sekk lañ. wax dëgg yàlla ñu musuñu déplacé wu musuñu bougé musuñu def dara coon tamit am kóllëre nekk ko xam ne boo ko xasee feccal du xool fecc kële du xool fecc keneen du xool ku la daax a fecc xoolul dara saa bu nekk moom li li mu am la gis coon tamit non gis naa mu daan dundee noonu tamit d'accord ma dégg ma dégg ci ay waxi amet mu ni man démb ba muy métti laa taxawoon kon ça veut dire Ramdaan dafa mosoon am ay jafe-jafe moom dong mu nekk fa boobu parce que yaa ngi wax léegi ni Amady Badiane ak Ameth ñoo doon feccal coon mais dafa mel ni Ameth ci ni mu waxee dafa zappé Amady ni man ba muy metti man dong maa fa taxawoon. waaw noo xam nga ba muy metti moo fa taxawoon moo tax bi muy neex neex na si moom neex na si moom nii de neexul. waxa rek. dinaa ñëw foofu tey boo leen bu boo leen demee ba yéen di ka seet yi xam di ko jël yaa ngi dégg di ko jël di wax ay waxam réseaux sociaux bi di ko tasaare affaire yooyu mais neex na léegi parce que tamit bi muy naqari la temps boobu ñoom dañ doon dox yoruñu woon oto mënuñu si woon am dara hmm. mais tey ku si nekk am nga si oto mën nga dundal sa bopp kon bi muy neex kon kay noppil hmm. wala bo d' accord d' accord nag bi muy naqari nga fi nekk hmm. bi muy neex kon noppil parce que loo gis bala mu ne nux nux foog mu ne war war addina moom loolu jarul sax nga koy wax nit ñi. nit ñi moom loo mën a dugg ci addina. pikiir sax balaa mu laa faj foog mu génne sa deret. Mhm. bu génnewul sa deret du la faj. d'accord tamit. d'accord am na solo ay leeral la yoo xam ne dañ ko doon andi parce que ku xam kii xam ne fekkee na ramdaanu démb moo tax il fallait que. ñu démb daaw ma leen fréquenté. Mhm. ñun dañ daan nekk fan si noonu bu bu coon defee dara ñu jënd kaset di ko topp xam nga di ko déglu lu mu génne bees ñu daw jënd ji ko fu mu tëgg ñu dem xam nga bu ñu munee dem dem noonu la mais comme dund comme ñoom non. daa ngi dégg d'accord waaw ah, dund euh. leen non parce que léegi la am ngay nekk fant di wan nit ki ne ko maay sa fant bëgg xam nga def ay affaire mais bu njëkk ba daa fant nit sax te doo fa dem. yaa mhm. ngi dégg. d'accord ah, euh, naka nga gisee sorti Ameth Thioub bi bala maa ñëw ci li xew tey sorti Ameth Thiou bi nga xamante ne defoon na ko taxaw di dénoncer ni man sama frère kontaanuma ci moom naka nga gisee euh, sorti boobu noonu. non xam nga tey kontaanul si moom xam nga tey guy gi koo jurul jëndoo ko kontaanuma si moom wax ju yàqu la tey kenn rek moo mënoon génn ne kontaanuma si waali waali nekk ci danger mooy ci ne. Mm-hmm. ak ak ak ak ak euh, ak ak ak mm-hmm. dëgg à ñooñu. yaa ngi dégg ngay kontaan si moom kontaanoo si moom war nga mën a dem ba këram woo ko nga toog mu toog ngeen réglé ko mais tey boo ko jaayee réseaux sociaux bii nga xam ne am na ñu xam ni ah, dañuy ñàkk lu ñu wax bay bëgg a dee am ngam ñëw may leen lu ñu wax ñu lëw-lëwee la wala du noonu mhm. dañ lay lëw-lëwee wax dëgg yàlla mhm. waaw way mhm. moo tax ga gars yi di ko lëw-lëwee parce que la fait que kontaanuma si waali nit ñi dañuy ñëw song la aussi xam nga di wax loolu mooy affaire bi. d' accord mais bi Ameth defee sorte boobu noonu nga yaakaar ne tey jii ñenn ñi nga xamante ni ay jege ñaale papa Thione lañ euh, xamoon diggante Thione ak Ameth Thiou démb est ce que jotul woon tamit ñu woo Waly woo Ameth Thiou ni ko lii kat sa papa moo ko fi bàyyi woon lii ak lii ci tànk yi muy dem ba agsi fii. waaw mais est-ce que Ameth dem na si ñooñu kalaame leen waxa rek xanaa am loo kilifa euh, euh, da nga koy doo ko yëgal fu mu toll nii wax bi tey am na kilifa yoo xam ne boo leen ko waxee lan la ñuy def tey jii bu mu amee lu ma naxari ma dem si kilifa yi wax ko. Mhm. kon du jóg kaw mais boo ko waxee ci kaw ba pare boo kilifa yi lan lañ fay régler mhm. waxa rek ba pare Wally Seck tewul tewul ci ne de ku ku ku xam ne da ngaa am lu la naqari ci moom nga dem ba ci cinne nga cinne mm, bu ko yëgee kinne moom xam nga Wally Seck bañ na ko ba bu waxee ak ñaari baat ñett yaayam la lay wan. Mm-hmm. kon jox na yaayam cër. du dëgg yow tamit pour nga jox Wally cër Wally Seck cër mooy boo nekkee ak moom mu nekk xale si sa kanam ba nekk mag yaa ngi dégg bu la defee dara nga dem ci cinne boole ji ba pare Wally Seck est-ce que xam nga fooweewul musique lii miracle la bu ñëw si moom fooweewul musique dafa xëy rek necc yaa ngi dégg mais man nag ah, defe naa eh, ñoom ñooñu naan bàyyi nañ ko yàlla ak yooyu defe naa ñooñu pili fort lañ pili fort est-ce que war naa nduroog fort. Mhm. boo demee ba yow fort gën laa doon pili fort mais xool sa bopp. Mhm. wala boog. Mhm. waxal boog. d'accord mais bi loolu noonu amee mais bi loolu noonu amee ci la leen fekk. fekk leen ngeen di def lépp. mu dem ñëw fekk si leen ñëw ba mën a ànd ak yéen boot leen wax ji daal moo mën a ñàkk. mais bi loolu noonu amee nga yaakaar tamit Wally waru woon xool ci diggante Ameth ak Papa Thione que maa ngi dégg Ameth mu ni man ànd naa ak benn tournée boo xamante ni orchestre bi ñëpp wanoon ginnaaw Papa man dong maa àndoon moom dem nga yaakaar tamit Wally warul woon a mën xool ci loolu noonu jël grand bi teg ko loxo génn ni ko grand donte jàpp nga ni maa jub mais bal ma àq pour rafetal digganteem ak Papa Thione. non xam nga tey orchestre bi bu ñu wanee coon ginnaaw tamit du yow kese yaay tëgg. Mhm. coon wuti na tëgg kat de pour nga fecc am na wala amut bu la fa bàyyee yow kese kenn tëggut du baax de. Mhm. yaa ngi dégg ñu wan ginnaaw coon sekk dama ne ak coon sekk orchestre la mu bàyyi nañ ñi bàyyi woon coon yëpp avancé wu ñu mètre ñi ngi dellu ginnaaw ba léegi. Mhm. yaa ngi dégg du ma tudd seen tur. Mhm. mais ñooñu nga xam ne dañoo bàyyi dañ doon ànd ak coon sekk. Mhm. xam nga nit léeg-léeg di nga dem ba jub dëkk ndekete doo yegg. Mhm. ñooñu dañoo bàyyi coon sekk sax affaire bi jóg. maacu maacu bi ñëw rek affaire bi yéeg. mais maacu am xam nga waaw Ameth Thiou mi ngi fa mais dama ni da nga ni Ameth moo ni am na ñu wanoon ginnaaw coon moom mu des fa mhm. ña wanoon coon ginnaaw ñooñu na xool ca ñooña fu ñu toll ak moom fi mu toll mhm. moom moo leen raw mhm. am na wala amut moom moo raw ñooñu mais dama ne man lu may wax mooy Ameth Thiou ak ñoom ñëpp benn lañ Ameth Thiou Amady Badiane xam nga co euh, euh, Waly Seck mais man xam nga lan moo ma jaaxal lu la waali di def ba munoo ko wax jaaga mu réglé ko tamit day xaw a doy waar waxal rek sa doom sax doo ko yedd si mbooloo mhm. waxal rek mhm. te lii boo ko defee mel na ni yow da ngaa jël sa nit indi ko ci mbooloo tey guy gi lu ma doon doon sa grand am na loo xam ne bu ma la ko waxaloon si mbooloo mhm. wax dëgg yàlla dootoo ma mën a woo téléphone dootoo mën a waxtaan ak man yaa ngi dégg tamit mer day ànd ak sago mer bu àndul lak sago rek day soppaliku gaynde fàdd la te tamit yii nii gay gaynde dafa mel ni gaynde rek ku fàddan mhm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ba pare boobu ba léegi moom mooy wax Wally waxul. waaw mais loolu nag moo jaaxal ñu bëri ah. parce que tey tamit pourquoi tamit Wally ak staffam toog noppi ba koo ci jël pour interview sax muy la non lii mënuñu ci wax lan mooy c'est quoi le problème. non luñ mënuñu ci wax mooy yàgg gi mu wax koo yàggal mbokk ngeen. Mhm. mais tey tey jii mënoo génnee amettu ci Wally Wally tamit mënoo ko génnee ci amettu. yaa ngi dégg mais tamit tey jii euh, comme ñoom ñaar noonu mu demee ku ci wax da ngay dugg ci coow li. Mm-hmm. moo tax léegi fu mu toll ni ñëpp a leen di seetaan. Mm-hmm. moom bi boo amee ni kii nitam la te bu waxee ñëpp dañ koy seetaan ak moom ana ngaa nga waaxu ba ba dem gis Wally Seck waxtaan ak moom ngeen réglé ci suuf. Mm-hmm. wax rek. d'accord boo li nga koy bàyyeek ak yàlla munoon ngaa waaxu ñëw waxtaan ak moom ngeen juboo d'accord wala du noonu. bi loolu noonu amee euh, Bercy Kër Massar ñu gis Wally génn. Euh, woy fa ay woy euh, wax fa ay wax. Mhm. ñu bari ci sénégalais tamit jàpp ni wax ji Ameth Thiou lay waxal ba Ameth Thiou sax bi muy tontu tey ci wax jooj noonu la sukkandiku. Mhm. wax jooju noonu waa boole wax foofu noonu ndax nga ko jàng tey. non xam nga tey xam nga mbër fëreer am ñu boo dee da ngay daanu mbër fëreer tey jii xam nga wax bi waruma ci tontu sax mais dama la rus moo tax ma tontu si li ngay wax ni jigéen moo koy wax diwum daf may gaaruwaale. Mhm. waxal. gaa arxuraan sax buñ ko taree boo bàyyiwul sa xel danga naan man lay waxal xanaa am loo fu mu toll nii saa boo waxee euh, euh, euh, am nga ko waxal. Mm-hmm. mais wax xam nga nan ngay def ba du doon yow ngay moom yow lay waxal. Mm-hmm. yaa ngi dégg nga nga bañ a jël wax ji moom ko. Mm-hmm. te ba pare danga ne sama yaay moo ne ma diwkat mi ngi lay gaar waale. Ah, dinaa ñëw foofu noonu. wax ji waxoon foofu noonu. waaw dama ne. léegi est-ce que Waly li foofu tamit war na ko wax. ci kaw Cheikh non waa Waly porteur de voix la yeekat yeetekat la xam nga lan la wax dafa ne léeg-léeg nga ànd ak nit. nga dem ba nit ki dem ba naagu defe ne bu àndut ak yow du baax. waaw fekk li loolu lépp yàlla la wax na dëgg. Mhm. Waly seek ñoom ñëpp gis nañ ko Waly Seck benn miracle la bu ñëw seen biir. Mhm. ku xam ne du foowee boo leen répété du fa jaar. Mm-hmm. musuta laal seeni sabar ay football lay toppatoo fi ngeen di répété du fa dugg ngeen xëy mu ñëw jiite leen mais loolu nga waroon nag bu fekkente ne am nga méccoo am nga bopp kon tey waroo ñaaw ci loolu yàlla moo leen ko indil déglul yàlla mi la ko indil ta nga seet nan ngay def. Mm-hmm. te tamit defe naa Wally Seck ni ma ko gisee nii mais waali bonu la ah. pour man sama gis-gis quoi dafa naa ni bonul warta dëgër bopp parce que bu dëgëroon bopp fii mu yegg du fi yegg ba pare Wally Seck est-ce que xam nga bu meloon nenn li fii mu yegg si du fi yegg si parce que Wally Seck am na plateau yu mag yoo xam ne ay waykat yàgg na fa yéeg ñooñu di ko wàcce ak ay sénégalais yi toog fii naan kii kat la du waykat kii munul nangam naangam mu dem ba dóorkat la boobu ñu ko doon wax mu dem ba dóor xol yi bu rëkkee ñëpp ñëw wuy si ko mm-hmm. sa sànni eh, taal bu yàlla taal sànni ca mat a gën fay ko de. d' accord léegi maa ngay jéem di ci kolaas boo moytuwul yow yow d' accord léegi foofu noonu foofu noonu. foofu noonu ma jël ci kenn mu di Amady Badiane. Mhm. ku xam Amady xam digganteem ak Waale. Mhm. ku xam Amady xam digganteem ak Amath Thiou. Mhm. léegi foofu noonu lan ma fa nekkoon taxawaayu Amath Thiou. Ah, taxawaayu Amady non Amady tey jii du génn bu génnaatoon si réseaux sociaux bi mu gën a ñaaw di. Mm-hmm. li muy def du la ko wax du ma ko wax. Mm-hmm. mais xam naa ne Amady moom ni ma ko xamee ak la ma gis muy def Amady gis naa ko daal ni muy def daal ci Wally Seck mag bu àndeek xale noonu lay def gisoo si plateau bi moo yéeg bu naree kii mu dee ko bu naree déborder mu ne ko nii di ko. étudier di ko wax defal nii defal nii ah moom ni ma ko gisee dina wax ak sa waay dina wax ak waali hmm. mais li muy wax leer na ma ni du ko wax ci kaw tamit nit ñi di ko dégg. parce que loolu day yokk coow. d'accord mais léegi boo tànkee euh, euh, euh, baatu ñeex. def ci ñeex mi boo tànkaatee même ñeex bu ko defoon tey dañ naan waaw gars yi tamit xam nga waa li moom moo nekk artiste boo xam ni duñu duñ ko bàyyi. Hmm. lu mu yëngu gars yi ne ci. lu mu def gars yi ne ci. Hmm. kon tey su ko defaatee mu gën a ñaaw. d'accord rek mais léegi ah. foofu noonu foofu noonu sénégalais yu bari jàpp ne aussi tamit euh, Youssou Dieng bi mu génnee wax ni man bàyyi naa biir Faramareen. Ah. même pas un mois Ameth Thiou génnaat. Euh, est-ce que nekkul tamit dafa am loo xamante ne dafa leen a naqari ci biir ba tax ñuy génn. non non pourtant ñoom ay jàmbaar lañ parce que tey mun nga nekk fenn doo nekk fenn tey euh, nit war ngaa mën a fexe ba demal sa bopp. Mhm. mais waroo bootu waroo bootu en vie. Mhm. génn boobu ñu génn yàqul si orchestre bi dara te réewul mbalax mi mi ngi gën a safan yaa ngi dégg te tamit wax dëgg yàlla yuusu jàmbaar la mais boo leen ko toppee cent euh, cent pour cent waalee tax waali moo tax ngeen koy topp. Mm-hmm. waxal tay jii boo leen wax waxu leen ma waxu yuusu de waxu yuusu bu mu wax si waali moo boobu ngeen wax mais la muy wax ci suuf est-ce wax ngeen ci. Mm-hmm. parce que xam ngeen ni loolu sax boo leen ko waxee du ami vie. Mm-hmm. ay waxam du ami vie mais la fait que mu ne waali rek yéen ngeen ñëw tiitire ko si la ay waxam di dem. tey suba sax tey suba sax maa ngi ko dégg mu naan Waly moom mooy mooy mooy mooy kan ba tey kenn waru koo wax dëgg Waly mooy kan ba Ameth Thiou warta wax ak moom loolu mu mel ni ni mu waxee que ni tey sénégalais yëpp ñëw attaqué Ameth Thiou parce que Waly nit la ku nekk am nga droit wax ko la neex. waa mais xam nga tey su doon Waly dafa génn wax ni ma toogee nii wax ak yow laay tontu waxi Waly mais ndax Waly dafa toog tontu Ameth Thiou amul de kon xam nga Youssou Dieng tamit mi ngi bëgg a dugg ci coow li dugg si beneen domaine moom diggante Waly la ak Ameth Thiou digganteem la ak Waly seek na xaar bosam yaa ngi dégg wax dëgg yàlla. Mhm. loolu mooy affaire bi fii nag du ma wax ni diw wala diw wala diw mais bëri na fi ñoo xam ne li ñu doon Waly moo leen ko def ah. mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. wax dëgg yàlla mais ànd neex mais taxalikoo tamit na rafet. tamit tey jii Waly Seck daal xam nga lu ma neex si moom kenn génnagul ne damaa yoreel. damaa yoreel da nga ko mës a dégg. d' accord dinaa ñëw d' accord dinaa wala damaa fenal. Mhm. am na. Mhm. damaa wax wax bu ñaaw am na. Mhm. jox na ma lii wala jox na ma laa wala mu may sa moroom nga mer. jeex na taag segam moo dem fekk ñu ko doon saaga ay ndey di ko xas mu woo leen leen mais asantamaa ki nga xam ne nii mi ngi si biiram. d' accord wax dëgg yàlla mais ku ñun ñëpp xarit lañ mais bu guddi jotee ku nekk tëdd sa nekk ñooñu war na nañ am jomi nag. loolu ñu defar buñ ko mës a tas nañ fexe ba mu toll ne bu waali rek d'accord loolu la rek waaw d'accord naka nga gisee euh, waxi Ameth Thiou bi tey bala maa ñëw ci la ca biir damay bàyyi wax ji mu wax tey bi nga ko dégloo automatiquement en tant que ku doon topp Papa Thione euh, naka nga ko jàngatee Ameth Thiou xëy quitté Ramdan. tey quitté Ramdan. Mhm. mais Ameth mais yéen boo leen waxalee yàlla waxal yonent bi. yéen tamit euh, site internet bi da ngeen naa feex rek mais Ameth Thiou nekk nekk booy seet presque nekkul sax Ramdan mhm. ñaata at gisu leen ko mu ñëw. waxal da ngeen ko gis mu ñëw. Mhm. ay benn bis la tëb ne a ma yónni xanaa bii coon yónni wu ko. Mhm. coon de xanaa du ko yónni lii loolu laa foog. Mhm. waxal rek moom bu toogee ne bàyyi naa raam daan xam nga mais day mel ni moom dafa dafa nekk raam daan sax man de man man pour man nekkul raam daan ah. yaa ngi dégg. dafa bëgg a def benn direction bëgg yéen ngeen publier ko lool rek man loolu laa jàpp ah. wax dëgg yàlla. mais ci biir wax ji ci biir na moo dem Kër saar di ko gaaruwaale ba yaayam woo ko ni ko Waly ak li nga defal papa Thione ak li nga daj ci papa Thione euh, est-ce que Waly war naa taxaw Kër Massar di la gaaruwaale. waaw mais ki doon defal ca papa Thione mais Thione moom lan la ko defal moom xam nga yow waxoo maa defal Waly Seck papa Thione nga wax papa Thione ak Waly du benn de waxal. Mhm. tey jii bu nit génnee àdduna ay boroom ay doomam lañ koy séddale. Mhm. yaa ngi dégg. mais ku man def ku mënul ñeneen ñi def du dëgg kon Wally sekkul ak ñoom dara wax dëgg yàlla sekkul ak yow dara li nga defal boobu ba tey li ma defal Papa Thione li ma defal Papa Thione waaw Papa Thione nga ko defal wala Wally Seck ba pare Wally Seck damaa bëggoon nga delloo ko ba ci Cina Jaaga ba muy ba muy des kenn xamu ko mu toog ak Cina Jaaga Cina di wut dàll di wut tubéy di wut mbubu di wut affaire yooyu booba gars yi ñoom anañu woon léegi lu gën a tuuti sax Wally Seck nga baal ma ci wax di ba ka ci na di nàmpal di ko boot muy yuuxu guddi gi du di ko tee nelaw booba ana ñii nii di wax waxal. Mhm. mais yaayam kay wax dëgg yàlla mooy moo war a wax yenn wax yi. mais tamit est-ce que tamit yaay tamit loolu mu wax noonu. tamit est que tamit nekkul loo xamante ni moo moo moo merloo Ameth. waaw mais xam na Ameth Thiou bu may sa bu ma sama yaay ne gu Wally Seck yow la doon gaaruwaale. man tamit damay dem wax ko damay dem wax ko waal yaayu waali sekk mhm. lu tax demul wax ko yaayu waali sekk mhm. ma ni ci na jaaga moom nee na kilifa la ci waali bu nekkee kilifa ci waali léegi ci na jaaga eh, jigéenam la war a doon wala Papa Thione nekk magam am na wala amut mhm. waa léegi lu tax ñoom ñaar ñooñu demul ci kenn mu kalaame ko demul kalaame ko ci na jaaga ci biir wax ji sax dégg naa dégg naa ko mu ni man Papa Thion sama ñaari jabar yëpp teewee na ko ñeenti doom yi ma am tamit teewe na ko waali mosuma xewle mu teg fa tànkam. mosul mosuma xewle mu teg fa tànkam. waa mais dama lay wax benn affaire tamit. Hmm. nit ki fi mu la yam est-ce que sañoo ko faa yam. Hmm. waxal mais yéen xam nga munu leen laaj da ngeen ko waroon laaj lan moo waral lool. mais gis nañ ne Ameth tamit amul limite ci Wally dafa jeex tekk ci Wally est-ce que tamit Wally war na ma wax la benn affaire xale moom wax dëgg yàlla mun naa bañ a fàtte yéen xamu leen lu mu doon jëflante ak Wally Wally mi nga xam ni sawaay moom ku ñëw mbokkam nga yaa ngi dégg tamit boo demee ba yow am ay sens interdit wala mu am sens interdit si yow mais lan mooy affaire bi ba tey wax ji dafa des mhm. wax ji dafa des de mhm. pour man waxul lépp bu waxoon lépp rek ñu yéen da ngeen affaire bi day neex pour ñu waxtaanee ko mais bu la bu bu dafa am lu def du neex a waxtaanee waxarek rek. nit moom xam nga nit ko gis am na kilifa mais da ngay dem ci kilifaam waxtaan ak moom tey jii daal affaire bi neex na ku nekk nee na mel na ni yaa jur waali mais wax dëgg yàlla amoon na waali sekk ay jaar-jaaram yoo xam ni bokk ko woon ak kenn te gisoon nañ fi ñoo xam ne nii sax dañ naan munuñoo feecal baay feccal dooma wax dëgg yàlla am na ñu daan wax loolu yaa ngi dégg. mooy lan non xaw ma de. yaa ngi dégg man loolu amoon na fi ah. <laughs> ok am na ko wax. Ah, moo ko wax ñoo feccal bàyyi feccal doom moo ko wax moo ko léegi <laughs> lu waral loolu. ah non kon léegi wax ji lu ko waral. <laughs> nit ki daal bi muy commencé. bu ma doon commencé liggéey joxoo ma dara. Mm-hmm. bu ma demee ba liggéey bi sotti bu ci mer dara yow. mais wax ji nii wax ji ah. nii est-ce que jàppoon ni mën na yàqal dara ci waale. nu ci yàq dara musique boo nekkee ci musique te duñ la coow demal tëddi. Mhm. musique coow la aar kër bukki la ñàkkul coow. lii day gën a yóbbu affaire bi rek. Mhm. mais du ci wàññi dara. Mhm. Wally Seck kay bu xëyee te du ñu wax si moom bu yaboo mu bàyyi musique. yaa ngi dégg mais tey bàyyi Ameth biir Ramadan. est-ce que tey mënut a indil euh, euh, orchestre bi ay jafe-jafe. waaw sa waay nag dama lay ñaan ngir yàlla yonent bi ametu day mbay si njaay wala mm, Fallou Benjamin. parce que tamit fan yii tamit fan yii tamit génnoon nañ Fallou tamit génn ni man bàyyi naa bàyyi tamit day bëgg a bari. xam nga tamit kaam wax la benn affaire xam nga affaire yi. wax dëgg yàlla woykat moo manqué mais musiciens dañoo bëri. xam nga waali temps yi la teg classement type. mais tëggkat da daan tëgg tëggkat toogaanu ko. piano di piano piano toogaanu ko. waa ñooñu pono secours yi ci nag. boo yaa ko yëg de tee tëgg. bu dee fecc tee ngaa fecc. te ci mbir mi. loo am yóbbul sa yaa ngi dégg moo gën de. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. ah man am na yoo xam ne nii daal du ma si yegg wax dëgg yàlla. Mhm. mais Wally Seck daal wax dëgg yàlla luñ waxaguñ ba tey lu lu ko tax a sikk. ba tey yow déggugoo sikkam de. bàyyi naa di daf ma doon gaaruwaale loolu du sikk. waxa rek. alxuraan sax bu waxee am na ku muy waxal. d'accord am na ku mu tagg am na ku mu waxal. saa bu waxee dina xas nit dina tagg nit. waaw mais na tombé ca lu baax la rek. ba pare yow bul jël mbalit di di tuur di di an di yóbbu sa kër. Mhm. del jël mbalit def affaire xam nga waali moom lépp lu mu wax gars dañ koy song barki démb am na ko ñëw ne ko dama bëgg a tuub mu ne dem leen ñu tuubal ko gars naa naan noo kii dóor kat la day dóor tuub na ci ab Ablaye Diop xaas ñëw tuub si waali diw moo ko programme nangam nangam mais ñii la ñoom lan mooy seen problème. d'accord léegi léegi taxawaay bi ak li problème yi am yëpp léegi lan moo ci taxaw lan moo ci. taxawaayu euh, euh, du ma ne Ramdan mais famille famille fami Thione Seck parce que. mën hmm. naa ci citer Kéba mën naa ci citer Ousmane tey lan moo ci seen taxawaay pour ñu jëm ko rafetal ba amet suy bàyyi tamit donte bàyyi na ñu fexe ba rafetal ko. non affaire bi affaire bi nii yéen a ko réyal yéen réseaux sociaux bi lii rëyul tey jii xam nga lu doon garaaw. Mhm. xam nga Ousmane Seck bu génnoon ne dama bàyyi waali Seck lii ak laa loolu moom mun na def effet mboq gi mboq. tey yàlla wàcce si suuf ne bu ko kenn dog mhm. mais xaritoo nag wax dëgg yàlla léeg-léeg bu dem mënta am na rafet. mais nii mu demee nii tamit nii mu demee nii tamit rafetul. non xam nga lii lan moo ci ñaaw. war ma ko non parce que Ameth bu demee bay tudd naan sama yaay am na lu ko naqari man tamit am naa lu ma metti tamit wax dëgg yàlla est-ce que tamit ñaanoon na Ameth buy génn Ramadaan mu génnee nii. non ndax Ameth ñoom bi Papa di dee da leen a jox Wally Seck yow yaa gis sa bët Papa Thione yanu waa wan ponkal yu toll noonu di ko jox lu tuuti lii nga waali kay lañu ñu war a yëkkati jox leen ko ñoom mais ñoom yëkkati wuñu leen teg leen si loxo waali. Mhm. boo génnee yow est-ce que duggoon nga. Mhm. ëmmadi mu dugg gis nga ko. ëmmadi xoolul waali def nii wala def naa nit ki boo mënul muñ ayibam mënoo doon sangam. du mhm. dëgg te ñoom sangu waali lañ waroon doon. ëmmadi ak ëmmadi ak eh, ñoom ñoo war a nekk waali boo bëggee nekk sang nit da ngay mu ay ayibam. Mhm. bu dee am na ayib. xoola waali sekk nit kepp simple la du wàlli du xut bu zamaan du dëgg mais yow bu ñaata at ñi ngi ne nem waxuñu ci moom dara. Mhm. mais tey boo waxee bu doon kenn ku ci nekk li nga li nga li nga juum dañuy génnee wax ko wax dëgg yàlla ku ne am nga juum te ah rasulullaay rek moo amul lu ñuy critiquer. Mhm. yaa ngi dégg te ba tey li ñuy critiquer di ko wax. man déggaguma benn baat boo xam ni baat lu ñaaw la lu waali def dafa maa saaga wala dafa maa yoreel xaalis yaa ngi dégg wala dafa ma waxoo loolu naan noo bàyyi naa diw li ma gën a naqari naangam nangam ah man nag vraiment guy gi nañ wax leneen waaye lii du kaawaay. d'accord am na solo moom laa ah. jàkk moom laa daraloon fii. grand am naa mbégte jàkkaarloo yow tey lan ngay tàggatoo ci émission bi. non lu may tàggatoo mooy dama wax ni Sénégal gépp pour ñu jàppale la guy gi. Mhm, non dama la xam quoi. léeg booy ñëw nii. wala dama lay ñeewantal. Mhm. Njaga Mbay dafa woy woy bu am solo nee na kenn ku si nekk. Euh, boo jubee mbooloo kenn ku si nekk lam la xamal la lay teero mhm. man boo jub si man rek damay xam ne gaynde mu ngi nii ku bëgg liggéeye ngi nii. ku bëgg avancement mi ngi nii. guy gi yàlla na nga avancer ni avancé. ndeysaan jërëjëf jërëjëf lool laal yàlla na ko yàlla barke. man gis na man saa boo ma woowee rek damay ñëw. xam nga lu tax. Mhm. xoola am na ñoo xam ne ku ñu woo waroo ñëw. mais am na ñoo xam ne ku ñu woo demal wuy ji. parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. sénégalais esprit de partage amuñu ko. Mm-hmm. te yow da ñëpp a war a partager ak yow muy mbër muy artiste. ndeysaan jërëjëf mais nit ñi ñoo dem ba de taamu fu may génn ak fu ma dul génn. Mm-hmm. mais guy gi yow guy gi quatre-vingt-quinze yow laa wax de. ko koo woo daf la waratul wuy fii parce que xoola doo wax lu ñaaw doo ko def fekkoo nit muy wax ngay dagg ay waxam di si ruux ay nit wala yu kenn xam mm-hmm. lu nit wax nga kay génne léeg-léeg nit day da ngay defal nit sax mm-hmm. mu dugal di kaas ma gis nga dugg effacé ko ndànk mm-hmm. dëgg la te bu la neexoon du la ci fekk wax dëgg yàlla yal na la yàlla defal jàmm ak sa caméraman bii wax dëgg yàlla kontaan naa si yéen trop jërëjëf moom moo baax rek parce que dañ ngoo fekk dañ koo fekk nii muy def émission mais daa wàcc ci ma ne ko grand doo dem bi xaaju guddi laa ko kar mu ne ma yéen tamit samay booy ngeen wax dëgg yàlla mu nekk nit ku nit nekk grand boo xam ne tamit lu mag di def bu gesoo gisul xale la mu yor day naax saay mhm. Mhm. yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm salaam guy gi li nga yore nii yàlla na nekk télé bu mag a mag a mag amiin amiin amiin te dama gis ni nga ciy sonnee mhm. am na sa morom xoola am nga doole mun nga xeex xam nga ni ñuy xeexee am na ko am doole comme yow di agressé defoo ko su la neexoon guy gi xam nga lu tax may kontaan si yow léeg-léeg booy ñëw ma wax la ko tey bu la neexoon nekk nervi mhm. guy gi doo nervi mhm. dëgg guy gi mhm. doo nervi guy gi am nga doole kenn ëpp la doole mbër nga duma nga fi mbër ba taay daan ko yaa ngi dégg man li nga nekkul nervi moo ma neex <laughs> ah. gars mu ngi noonu ah oh, nervi waay di leen jox yeneen dig daje <laughs> ci sunu yeneen émission fii ci People 221